seraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Leewtoo production ma taxawal combat soog ba diggante Tapha Tine ak Boy Niang 2 soog de titan en ñu doon laam-laamee ndax dana taxawam déet na combat ba démb lañ doon amal seen jàkkaarloo bu njëkk démb la Boy Niang a gis Tapha Tine xool ko peese ko ci biiri bët Tapha Tine moom it démb lay a gis Boy Niang 2 natt ko xool fan la koy jaar moom Pape Thialis moom it démb lay doog a gis ay ñaari mbërëm solal leen ay blouson bi le ñi doon njort naan dana taxawam déet bu ngeen yeboo ngeen laaji kañ lañ koy def ban date la bu ngeen ko xamee ngeen wuti paas face tafaatin nag boo ñaa deux faaw ñu bëree faaw ñu laale ci seen jàkkaarloo bu njëkk ba sax la ko tafaatin xamal mooy soo xeexee ma daan la boo bëree ma daan la xeex ak bëree loo ci def daanu boo ñaane ko fii moom ci nel fondé moo fi nekk képp kuy mbër jàppal sab kooka ngi fi boo bëggee ñu xelli la boo bañee ñu xelli la par force rax ca dolli ne combat bi dina am xeex dina am bëre ñaar yooyee lu ci tafaatin bëgg rek moo ko teree neex journal ba xam leneen a Garga Mbossé ba jubóog moom waxtaan ak Sa Thiès ba jubóog moom bile dër bi taxaw na matérialiser képp ci des moom Basiru Baabu ma signé bile combat la mu xamle mooy ba may ñëw jàpp ma woone Pape Thialis dana taxawal combat bi la mu xamle mooy ba may ñëw fii dañ doon officialiser diggante Boy Niang 2 ak Tapha Tine musuma jàpp ne sama ñaari mbër yi Sa Thiès ak Garga Mbossé danañ ci bokk waaye ba ma ñëwee la waxtaan ak man ñu far juboo benn yoon waxtaan nañ ba juboo damay fermer yeneen négociation yi ci yeneen promoteurs yi ma xaar ko semaine prochaine ngir mu jox may avance bu dee ci ñaari mbër yi Sa Thiès combat relance la bëgg Boy Niang 2 moo ko daan le 13 mars 2018 boobee ba léegi dafa def année blanche ñëw bëgg a relancer wu bu dee Garga moom Moussa Ndoye la daan avril ci stadium Iba boobee ba léegi moom Garga ci teg ba dolli ay victoire moom la bëgg moo tax ba combat ba taxawee journal ba xam ne Leewtoo décroché na buyan derby bi derby bu saf-saf bu tàngi jër moom lañ décroché bu dee guy gi moom ba léegi décroché gul adversaire ñaari promoteur ngi ni bëgg combaam digganteem ak Reug Reug Sénégal Entertainment Group bëgg na bile combat Vox Arena bëgg encaissé woon 35 millions combat am ak rëg-rëg waa Sénégal Entertainment Group 25 millions lañ ko fay loolee moo waral staffu guy gi lànk ba tëdd ca ñag ba noonu la waa Vox Arena def dugg ca xeex ba daal di waxtaan ak nas bi le combat ñi ko bëgg ñoo bari mbooleem ku ko dégg da naan jaadu na nañ ko taxawal boo moytuwul nag mbir ma dana gën a buuse ndax ñu nga ca négociation ya la nar a gën a buuse mooy saison bii ñu dëgmal VIP yi ñu doon a taxaw Modou Lo Ama Baldé moom taxaw na bu yàgg Siteu Papa amoon nañu dat bay waaj a bëre Sa ñëw dolleeku ca mu gën neex loolee moo waral journal bi ne saison bii ñu dëgmal moo nar neex ba àgg ci lool booleem lu rawoon amateur yi ci saison bii ñu gën dañ ko nar a jiwaat ci saison bee ñu jëm combat yu neex combat yu alaa daw gis saison boobee ñu dëgmal ndax président Alioune dana ko fekkeem déet loolee mooy laaj ba bëri na nekk ci làmb guddi yi boo diggante Yékini ak CNG wax ci diggante Alioune Sarr ak CNG la mu wax ci Yékini mooy aw ci moom naqar mais damaa am ci moom mbetteel buñ la coptee dugal la ci structure bu mel ni CNG bu amee lu la naqari bay génn da ngay yëglu wax ko ki la ci dugaloon waaye génnum Yékini ci CNG man ci presse bi laa ko yëgee donte dama koy nangul position waaye waroon naa gën a nice ba nu ko laajee ca président Alioune la mu xam le mooy décision bi ministre bi di jël rek mooy valable bu ñu demee ba toll ca décision bu ñu jël ñu xam ne noonu la en tout cas nañu xam ne nit ñi di jooy dugg na ci sunu nopp boo moo waral lépp lu amateur lamb yi di jooy yëg nañu ko diggante Alioune Sarr ak CNG balaa ñu cee àddu mandaam jeex bu jeexee bu boobaa décision bu ñu war a jël danañ ko jël jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci etu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah